vif du sujet ñu démarré ko ak actualité boo xam ne dafa tiis euh, bu dal ci ndoddu sénégalais rawatina ñu ñi nga xam ne ñu yëngatu au niveau de la presse mu nekk tournée économique bi nga xam ne le président Macky Sall dooroon na ko samedi tolloog 28 euh, mai weer bi euh, ñu weesu fas yéene ko woon jeexle Kédougou ce lundi 31 mai mu am na jéego bu doy waar bu fa am tout au long de ce voyage nga xam ne ñett journaliste yu site internet leeral dañ see ñàkk seen ay bakken balaa ñuy dugg euh, si euh, vif du sujet bi par rapport ak tournée économique bi nga xam ne président de la république Macky Sall def na ko si gox-goxaat yi nga xam ne féetewoo na si biir Sénégal ban message wala sax ban mot ngay def euh, par rapport ak ndaw yi nga xam ne si seen liggéey ñàkk nañ seen bakken. waaw loolu de moom la alxuraan waxoon ne allazina isaa asaabatkum musibatun mhm. xaalu inna lillahi wa rek lañ ciy wax mm-hmm. mooy ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala mu jéggal leen te xam ne def nañ lañ waroon a def mooy àdduna moom mission la mm-hmm. te sax ci kaw mission lañ nekkoon mooy di liggéey ba yàlla jële la fi mm-hmm. ndax àdduna moom liggéey la ak jaamu yàlla rek bu dat bi jeexee nga dem keneen ñëw ah, kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu yërëm leen di ñaanal waa leeral euh, mi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk ñu ngi leen koy jaal. tey ñaan fa leen ñooñu féete woon yàlla na leen fi yàlla féete. allahumma amin merci beaucoup euh, sëñ baax ñu dégg dugg par rapport ak euh, suñu waxtaan bi dooree ko ak euh, actualité bi nga xam ne mën nañu wax ne fan yi ñu weesu yëpp le président de la république euh, Macky Sall dooree na ko foofule si Kaffrine jaar yu mel ni Kédougou jaar région yu mel ni comme fii di Diourbel ak dëkk yu ko wër mujjee foofule si région de Kédougou mu nekk benn tournée boo xam ne mu ngi ko tuddee tournée économique mu nekk unième mun nañ ko waxee noonu après. conseil des ministres décentralisé yi nga xam ne mën nañu wax ne le président de la république Macky Sall na ko en ak it ay chapelet euh, yoo xam ne euh, de promesse yoo xam ne kii di président Macky Sall defoon na ko tey jii on est en 2021 ñi wax wàllum élection locale yi nga xam ne ba tey euh, date bi bien vrai que président de la république teg na ko am na ay confusion yu doy waar du ci tey jii le président de la république dàbbaliwaat tournée économique mel comme amul opération de charme bu muy def par rapport a la population sénégalaise ban lecture nga ci def. waaw lecture bi ma ci def moom mooy première mooy Macky Sall dafa am tuuti problème ci passé mooy euh, ñëw na am ay événements yoo xam ne bett na ko. Mhm. ci liñ ko mën a waxee. Euh, jàpp naa ne sax événement yooyu moom moo ko poussé pour mu organiser élection locale mhm. ndax. Euh, defe naa ne ni mu doon doxalee ci politique am xalaatul woon pour ñu def élection locale ci moment bi mais comme ay événement daf fi am mu jeex mm, mu daal di war nag dem élection local élection local na ku nekk xam na ne il faut nga def ko mais ci ay gox ak i goxaat lañ koy lañ koy amalee nekkul lu nga xam ne mhm. euh, faaw nga wàcc ci terrain bi daal ci gàttal pour mën ko gagner mhm. léegi nag mu bëgg a def ay tournée. Mhm. yoo xam ne ku nekk xam na ne tamit euh, xaw ma nu ko tuddee mën na ko tuddee tournée économie. Mhm. mën na ko tuddee doxu nemmeeku waaye lu mën a am mooy ñun liñ gis mooy mitin yi mii ci politique. Mhm. boobu rek la woon affaire mitin la. loolu nag man daf ma daf am na lu ma ci xaw a jaaxal lu ndaw a ndaw a ndaw mooy que ne boo xooloon Macky Sall tey keroog bi mu taxawee ci kafrin di def di sabaru théâtrekat yi topp ko waykat yi dangay ngay laaj jour boobu noonu yeneen moroomi président africain bi fan lañ nekkoon ñu ngi woon Ghana lan lañ doon def ñu ngi doon régler problème mu Mali parce que Mali ñu ngi souffrir ak problème mu coup d'état nii. Mhm. wala boog double coup d'état sax nga koy wax wala ay problème situation yu jafe te situation yi li muy jafe-jafe euh, ñi ngi xool ba xam dañ leen a war ak bu ñu leen embargo boo xoolee ku mel ne Assimi Goïta fi mu laal mooy dafa bëgg a dàq français yi indi riche yi que moom riche la jànge maliens yi boo seetee mu ngi leen di commencer convaincre ci côté boobu te problème mu Mali dafa nekk loo xam ne bu ko bu réglé wul gis nga tey lu mel ne Burkina ñu ngi si ñu ngi souffrir ak ay attentats yu metti yoo xam ne wóor na leen la désordre bi nekk Mali képp moom moo leen toppaat dégg loolu gis nga Mali lii fa am nii ci noor bi bu bu bu bu bu bu bu ci yàlla deful jàmm su ci kanamee ñun Sénégal dañ ciy topp parce que ñun suñu frontières yi normalu loolu soo ko soo ko xamee Mali man man xam naa yoon boo xam ne da ngay jaar Fuuta dox jaar ci tefes gi dem ba kaay nga xam ne da ngay génn ci frontière Sénégal dem frontière ma dem Mali dugg biir Mali mooy kaay mhm. te doo jaar ci benn frontière tefes bi rek ngay topp donc loolu bu amee nga xam ne wóor na na la yow Mali ji bu normalul quelque temps mën naa indi sax Sénégal ci boppam état Sénégal nekk ci mënaas nga bàyyi fa yooyu yëpp sa moroom président yi toog di xool naka la ñuy régler problème mu Mali yow nga ñëw fii di tëgg ay sabar di fecc man jàpp naa ne même boo ko bëggoon a def situation yi Mali nekk rek waroon naa mën a tax mu teg loolu ci suuf mm-hmm. mu dox ba Mali nekkaat ci jàmm mu doog ko mën a continuer def ay ay ay activité politique am. <laughs> Euh, sëñ Bara dogguma la sax mais comme ni koy olof euh, di waxee euh, bay ci sa weeyu tànk naam c'est vrai que mm. Sénégal si kuréelu CEDEAO ci la bokk. Mm. réewu Mali nekk na réew boo xam ne mën nañoo wax ne sax bu ñu évoquer l'histoire mm. mook Sénégal benn dëkk la woon. voilà mais tey jii le Sénégal tamit mun nañu wax ne ak Covid 19 bi sànq yaa ngi koy junj si événement mars dernier yi gisoon nañu aussi la jeunesse sénégalaise mun nañoo wax ne carrément dem nañ ba yëngal sax nguuri Macky Sall di laaj li nga xam ne mooy emploi tey kii di président de la République bu demee di dem tournée économique dem sax bay inaugurer li nga xam ne mooy. hôpitaux boo xam ne foofu lee au niveau de Kaffrine benn hôpital bu am doyo euh, fii au niveau de la sous-région am aussi ay promesses yoo xam ne euh, yu efficace yoo xam ne def na ko pour rentabiliser aussi euh, pays région yu nekk foofu lee dans le sud ou bien dans le nord du pays est-ce que loolu nekk gën a nekk urgent aussi lijjanti problème yi beneen dëkk aussi sëñ Bara non li nga wax fii moom amul benn urgence bu ci am yaakaar naa. Ah, ministre amul bu fekkee hôpital non hôpital bi tabax nañ ko ba pare. na ministre na ab Abdoulaye Diouf Sarr dem mu inauguré ko mu jeex. mais bu ko defutoon nga ne le président de non. la république n'est pas proche de sa population euh, euh, population bo bokkul parce que moom tey amul amul gis nga ay dem di ay ay ay ay euh, def ay xawaare pour dañoo tabax benn affaire bu ndaw ñu ngi koy inauguré moom dem na ba fi inauguré sax lu nga xam ne parewul dégg nga. Mhm. kon jàpp naa ne man régler problème mu Mali. ta ta du urgence mais nañ na dem mu dem set na dem ànd ak CEDEAO wala daf leen a mere parce que li CEDEAO waxoon ne nañ dindi parrainage yi moom moo tax mu mere leen leen saboté xaw ma. Mhm. mais yow xam nga ne yow ñun waruñu frontière ak Mali. Mhm. nga gis Burkina mi frontière ak Mali li ko Mali yóbbee tey ñun ñu frontière ak Mali mën a xam li ñu Mali mën a indil ëllëg. Hmm? ak nga gis Tchad tey problème bi mu am ci euh, rébellion bi amoon hmm, dëkku Kadhafi Libye libi nga gis li ci càdd souffrir tey Niger ak Burkina nga gis tey li ñuy souffrir à cause de Mali Sénégal ñoom xalaatuñ ne lii lu mën a ñëw ci ñoom la. mais est-ce que les réalités entre les pays ou bien entre les peuples même sont pareilles. non mais benn la parce que tey yow xanaa xamoo ne. Euh, ni senegal tëddee. Mhm. Mali topp ci. Gambie ñëw dugg Mauritanie ñëw dugg Burkina Niger càdd Libye problème mu xàddaafi bi moo répercuté ba agsi fii yépp tey. mais su ma la déggee sëñ Bara te su fekkee Mali mhm. Mali moom suñu taxawul dëgg dëgg dëgg dëgg boo moytuwul duñu am état duñu amaat état bu dëgër parce que yaa ngi koy wax léegi. Mhm. Senghor la woon ak boo Keïta Senghor toog yàlla dimbali na ko amul coup mu doxal jox ab Abdou Diouf Abdou Diouf jox Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade jox Macky Sall te benn bu ci nekk def nañ ko ci démocratie ñu am ay internats yoo xam ne nii maanaam ñu ñu gagné élection yu yu légal nga dem toog mais euh, loolu Mali amul sens boobu Modibo Keïta moo ñëw. Mm-hmm. ku ñuy wax Moussa Traoré ñëw coup ko nekk dictature toog fa di teg maliens yi lu ko neex ñu dem ba mu yàgg ATT mi yaakaar naa 91 euh, moo ñëw coup d'état ko mm. ATT moo gën ci ci président Mali yëpp moom mooy mooy mooy Nelson Mandela wu Mali mm. parce que bi mu ñëwee euh, euh, coup d'état à dafa coup mu daal di ne moom mu toog deux ans daal di dafay organiser ay élections daal di dem mu organiser élection ku ñuy wax Alpha Omar Konaré ñëw gagné. bi Alpha toogee ba jeexal comme ATT dafa defoon act bu rafet dafa ñëw dafa ñëw daal di ne moom dafay nekk candidat malien yi wateel ko fal ko booy xool daanaka ma ATT moo mas a toog nekk président bu légitime ci Mali te bi mu toogee ba am deux ans ba am deux mandats dafa déclaré carrément ne man du ma am troisième mandat bàyyi naa mhm. mais le 23 décembre nga xam ne benn weer moo ko dese woon ci mu wàcc ci lañ ko coup ku ñu wax ko moo ñëw coup d'état ko ñu ko coup d'état wee euh, yooyu buñ ko toppee day gudd euh, Jonkana Traoré ñëw nekk président bi intérim ñu jékki-jékki IBK ñëw toog gis nga IBK anam gi ko fi ñoom imam di ko jëlee ak ñoom Ka Kasimu ñëw tegaat fii. colonel bi mhm. bànnal ah, xaw ma bandaw bandaw bi mu ñëwee moom tamit gis nga parce que daf doon coup daf doon jéem a defaat coup d'état intellectuel ci ni ma ko mën a tuddee parce que boo toogee tey ñi nga àndaloon ñëpp nga bëgg leen a rocc dàq leen pour ñu mën leen a topp ci justice tamit loolu gars yi duñ ko nangu mhm. ñu defaat contre coup d'état mhm. tey li ma la mën a wax mooy depuis 1960 ak léegi Mali moom nekkul ci état bu légal daanaka buñ mën a xam man ñaanuma ko yàlla mais yaakaar naa ne mën naa am duñ ko fekk mais gis nga yu mel nii parce que tey boo demoon Mauritanie parce que liñ yor mënoo ko tudde dara nga dem Bissau nga dem Conakry tey nga dem euh, Burkina Faso tey dem Cameroun amul benn dëkku africain boo mën a jël ba ci gàmbi gi nga ne ñii ñi ngi doxal di jëm ci développement di jëm ci ak nite déedéet ñun dañuy arrière dañuy arrière loolu nag dafa nekk lu mat a jàngat te ku ci war a njëkk a taxaw dama ne la mooy Macky sàll su fekkee kuy xalaat lu ci kanam la. Mm. waaw parce que loolu noonu gis nga ñii ñii ñu wër nii li ñu nekkee lu mu yàgg yàgg dëkkandoo day wàlle. Mm. seen ak at Afrique gii mën nañoo dem ba delluwaat ci euh, nu mu tuddati delluwaat ci euh, colonisation. suñu état yi mën naa dem ba disparaître parce que taxaw. <laughs> mais